ñeenteelu daje ci euh, kuréel bi nga xam ne dafa ëmb ay organisation de la société civile yoo xam ne ñëpp ñi ngi bokk ci réew yi bokk ci OCI kuréel boobu nag euh, def na ñeenti nee bii mooy ñeenteelu daje yi ñaari daje yu njëkk yi ndax xam ngeen ni kuréel bi siège am nga Caire ca Égypte ñaari daje yu njëkk yi Égypte lañ ko defee ci Caire daje ñetteel bi ña ngi ko defee fële ca Bagdad ñeenteelu daje bi nag ñu doon seet beneen réew bu ñu ko defee moo xam ci Europe la ndax am na yu fi bokk Europe a boo xam ci Afrique la wala ci monde arabe yàlla dogal réew yëpp àndandoo tànn Sénégal Sénégal nag bu ñu koy tànn ñun waxuñu sax sénégalais fa nekkoon mais euh, ñeneen jàmbur yi ñoo ne Sénégal bu seetloo réew mu am ay infrastructures yu baax la réew mu communication jàppandi la réew la mu am jàmm. réew la moo xam ne aussi fonk nañ nit ña fa nekk kon daal wax nañ ay critères yoo xam ne wax dëgg yàlla siggil nañu ñun en tant que sénégalais yàlla dogal nag mu nekkoon indi défi ñoom ñëpp ñu ñëw gis ngeen leen bàyyi ko fu nekk dikk teewe ko et alhamdulilah euh, ñi ngi ci ubbite li waaye am nañ yaakaar ci ne li ñuy séentu ci forom bi dina am ndax forom bi jubluwul ci dara lu dul woo le monde musulman surtout ñu gën a dajale seeni effort gën a àndandoo gën a yëkkati seen yitte pour jaamaarloo ak défi yi nga xam ne ñoo am ci àdduna bi boo seetloo ñàkk dafa bari ci monde musulman boo seetloo feebar yi et eh, yàlla dogal na ñi ngi tànn ñi ngi toll ci jamono boo xam ne ñëpp a ngi tiit feebar bu ñu wax coronavirus boo seetloo réer maanaam ñàkk jàng yooyu yëpp dafa bari ci sunu réew yi te monde day boo seetloo dafa mel ni yàlla sunu boroom li mu am ci ay xéewal walla lu bari ci xéewal yi daf koo dëxañ ci sunu réew yi loolu nag ñu jàpp ne kon war nañoo gën a góorgóorlu institution yi fi nekk ñu jox seen liggéey ba nga xam ne xéewal yooyu nga xam ne moo nekk ci sunu réew yi ñu mën koo jariñoo waaye peuple yi surtout mën ci jariñu waaw forum bi du ay état ñoo ko def mais ay organisation de la société société civile ñoo ko def waaye terewul ñu jàpp ñun ne ci biir état yi ñu nekk dañu war a yore rôle facilitateur maanaam jàppale état yi ndax état du egg fu dina def lu bari waaye gis ngeen ni ko ONG yi defe léeg-léeg yi manqué état def li mu man ONG yi di complété léeg jàng mi du sooxe état def li mu man ONG yi di ko noonu lañ ko yaakaaree it ci lu mel ni conflit yi ngeen wax lu mel ni lay xew Libye lu mel ni li xew diggante États-Unis ak Iran wala yeneen réew yu bokk ci monde musulman yooyu yëpp dañu jàpp suñu rol mooy dox ci ngir jàmm mën a am waxtaan mën a am ndax ñun dañu gëm ne xeex guerre du regle benn problème euh, léeg-léeg nag ci àdduna ni muy doxee ay xeex di am ay jaamaarloo di am waaye waxtaan ak toog déggoo lañu yaakaar ne mooy mooy solution te ca la ñuy mujj kon ñun suñu taxawaay mooy woo ñëpp ci ñu taxaw ci loolu fu mel ni lii bi nga xam ne lu naqari àdduna bi yëpp la waaye naqari ñun waa Afrique naqari aussi monde musulman ndax lii bi yéen ñëpp a ngi fàttaliku ne réew la mu joué bu mag démb ci jéem a dajale àdduna bi jéem a dajale itam waa Afrique eh, ba yàlla dogal li mu dogal kon tey bu lii fa xew xewee te li fi xew am jeexital ci réew yu bari yu nu jege yu mel ni Mali yu mel ni Niger yu mel ni Burkina Faso ak yeneen réew ñun suñu taxawaay mooy naka la ñuy fexee ba conflit boobu jeex ak jàmm ba àdduna bi dox ndax ñun Afrique dañu bokk ci réew yi nga xam ne dañoo dellu gannaaw kon amuñ jotu xeex amuñu jotu def leneen dañoo war a jéem a taxaw ngir liggéey sunu ay réew te forom bi ci loolu la leen di woo waaw résultat yi ciy xaar moom mooy ni ñu ko waxee rek euh, réew yi gën a booloo gën a àndandoo institution yi nekk ci monde musulman ñu jàpp ci gën leen a dëgëral ba ñu joox li nga xam ne moom la population yi di xaar ci ñoom mu jàppale leen taxawu leen dimbale leen.